magi démb nan lañ dan dundé alquran muy asalafu ma alquran jotay gi wessu ñu wax leen alquran kañ la dugg ci rew mi ñu ne leen mom ak islam ñofi duggando waye Sénégal yàlla may ñu islam tel fe dugg lool mag ñi ak lenn ci ay jéego yi nga xamantene noné lañu def ba dund alquran waye samp fi la nga xamantene mom modi ay daara ak xam nañ ne seen environnement jafewoon na lool wuté ak yombal yi nga xamantene mom lañu am tay waye ci kaw loolu ñu daldi samp ay daara xajal ko bu baax baax dëkk mu jaadu ci ñun ak fu ñu mënti dëkk tey ak lu mu neex neex rek ñu gën a xajal li nga xamante ne moom mooy daara yi tey nag ñu fas yéene wéy rek ci sunu magi demb yooyee ci réew mi euh, juntukaay ya nga xamante ne ñoom ñoo ko ibtikaaroon muy wasail yi nga xam ne moo leen doon ci wàllu mu doon leen yombalal li nga xamante ne moom mooy jàngale daaray démb euh, mu bokk ci ay juntukaay yooye waaye ñu amoon ay yi nga xamante ne moom moo di ay méthode فظهر الفنانون التقليديون الذين نحتوا من جذوع الاشجار الواح الخشبيه مختلفه موك نانتي آه، من نانتي نيك تود رك موي الوا الوا ييغا خامتيني ماك ني نيوكو دون ياتال سين بوبو تي ييغا خامتيني موم موي غرابي في امون مو امون نيتي خيتي الوا ام اللوحه الكبرى اك اللوحه الوسطى اك اللوحه الصغرى مانام الوا غو غو ماك اك الوا غو يم اك الوا غو ndaw كون نيون نيب خامنا ني تايجي غيسل نيون اي تيري لا نيو يور تيري يومبو ني لول nga jël téré bi daal di koy jàngee su jeexee nga amaat beneen téere wala sa machine ordinateur wala sa tablette nga xam ne ay junni téere mën na ci nekk mag ñi ñoom amuñu loon loolu xoolal coonoy alluwa ñi nga xam ne jàngee nañ tuuti ci alluwa daara yu bari daanaka arxemes ak aljuma surtout arxemes lañ doon raxas li nga xam ne moom mooy seen alluwa yi nga xam ne alluwa gi da nga koy bind ba mu fees loolee balaa nga koy fomp balaa nga koy raxas day fekk nga daal di koy mokkal kon na nga koy jëlee ci alluwa gi daal di koy toxal ci sa bopp waaye ñun nag tey jii lu ñu soxla rek am nañ fu ñu koy fekke ci sëriñ google moo tax waajo waxoon naan man jaala google a cheikhahu kathura xata u ku def google sa sëriñ dina bari looy juum kon mag ñi àlluwa la nu amoon moo tax loolu doon leen yombalal ci wàllu mokkal parce que xam nga ne lii soo ko xasee ba fomp rek effacé ko dootoo ko amati fenn kon da koy denc fii sa bopp bi coono yooyu ñu doon am ci àlluwa ñëpp xam nañ ne bind ci àlluwa neexul ak coono yañ ca daan am euh, pour defar li nga xamante ne moom mooy àlluwa gi am àlluwa gu mag wala bu yem wala bu ndaw ñaareel ba ñoom ñu daal di xool ci li nga xam ne mooy seen waxyul bii ah ñu fekk ne cin yi maanaam taatu cin yi loolee suñu ko xoosee mën nañ fa amee la nga xamante ne moom mooy daa foofee lañ daan jëlee li nga xamante ne moom mooy daa ñuy bindee waaye dem ci li nga xamante ne moom mooy liñ tuddee al ashabul farisiya mooy xatt yi Eh, gar eh, eh, gàncax xatt yi ñu daan fa yett li nga xamante ne moom mooy xeeti xalima xasaba xatt bi nga xam ne maanaam façon bind bi ñu soxla moo tax xalima yi daan gis xalima bu mag bu dijj waaye ak boo xam ne bu sew la sans dépend ci façon bi nga xamante ne mag mi soxla na ko ci alluwam wala ci fooy ya nga xamante ne moom lay bindee kon ci environnement bi yaakaar na am na ñu xam kenn ci borom xam-xam yi ñu xam lool ci adduna bi yàlla def na ay at ci ginnaaw bi mu waree ñëw Sénégal ma bokk ci jëmm yi nga xamante ne war nañoo daje ak moom pour xamal ko li nga xamante ne moom mooy suñu magi démb Eh, ca laa ko eh, joxe addiya benn benn alluwa waaye alluwa gi ma bindaloon ko ci benn qasida shiariya mooy sama qasida boobu ngeen doon dégg mu bokk ci qasidu yàgg yi yaa chiaru ma xuntuka yowman li taxsilani xiina algaraami wa xaalu shawqi fi sabari eh, mu nekkoon lu ko yéem lool bi mu gisee alluwa gi mu làcce ci laa ko leeral suñu mag ñi nga xamante ne mooy suñu magu démb yi magu daara yi coono bii la ñu daan jàngee maanaam am alluwa bala nga am alluwa coono ba nga cee am waye bind ko balaa nga koy fomp day fekk nga mokal ko door a jaraat beneen bind wax deug fi yàlla mu nekkon lo xamne lu ko yem la lol waye lu mu xamut won ci sunu ci sunu ci sunu magni la won kon lol da fay nek lu jaadu ma delu ci waat ci walu téré ba léegi mathalan kenn ci magni ñi na soxla ben façon kamilu alquran mathalan nga soxla ben kamilu xafs parce que ñep xamnañ ne warsh mo fi gënon bari wala nga soxla ben kamil wala soxla ben téré da nga soxla téere laxdari wala da nga soxla muqaddimatul ajiya wala da nga soxla khalil wala da nga soxla fiq sunnah wala da nga soxla samrudani mu nek risala dañ leen naan téere bii de eh, té sëriñ bi ko am moom mu nga ba Tiwaawoon da ngay mujjee dem ba ca sëriñ ba benn téere moom moo fa nekk nga daal di fay passé nawet bi yëpp maanaam sëriñ bi pour mu jox la téere bi bés bu nekk da ngay ci ay toolam soo xëyee ba mu door laa jox téere bi bés bu nekk nga jël di bind ci sa loxo maanaam nga copier benn page bu subaa nga xëyaat ca tool ba mu joxaat la nga daal di copier waat beneen paas ba nawet ba jeex ngay door a jeexal téere bi kon def nga trois mois ci nawet gi yëpp ngay bayal sëriñ bi pour am téere bi at ma ca topp wala ba nga pare ci nawet bi nga war a jàng téere bi ñu ne la téere bi de ki ko xam mu nga ca mbooro da ngay dem ba mbooro ngay xëy ci toolam saa yu xëyee ba wàcc mu door laa jox ab mbind kon da ko beyal wala nga liggéeyal ko noor gi yépp ba mu jeex nga door a jàng téere ba kon am nga at pour am téere bi mën koo bind waaye amaat beneen at pour mën koo jàng moo tax ñoom lu ñu amoon dafa nekkoon loo xam ne lu barke la xoolal coono yi ñun ñi tey la ñan la jaral nga xam ne téléphone soo bippee nit rek wala nga bàyyil ko message ñu bari sax tayal nañu gis ab laaj goo xam ne wala lu leen lënt ci aaya alquranul karim ñu daal di koy laajte ku mel abou Abu ni Sadiq radiyallahu anhu moom waxoon na ne ban asamaan moo may tiimati wala ban suuf moo may àttanati su fekkee ne wax naa benn yoon sama xel ci alquran sama xalaat ma wax ko ci téere borom bi subhanahu wa taala te moo doon dund ak yonte bi moo gën a ëpp lu mu takkoo yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moom Abu ni Sadiq waaye xool ko nee ne sañu wax sama xalaat ci alquranul karim ñun nag tey ji nee nañu xaw nañoo dégg arab tuuti te ñoom ñooñu gënoon dégg arab ñi nga xam ne ñooy taabiin ya taabi o taabiin yi mag ñii ku xool seen bindi nga xamne ñoñu gëna dig arab jooni yoon parce que xam ngeen ne man mi ci walu lugha ak mawad al lughawi ci la taxasus waye ku xol seen mbind ñom ñep da ngay xamne lépp lo xamne mom lañu lajoon ci walu fununul balagha al mantiq bayan da ngay gis ne ñom fañu yegg ñun départ guñu sax waye ñom sañu ñoon wax seen xam-xam seen xalaat ci walu al qur'an xolal coono yi lañ doon daj te ñom amuñu won auto ñun legi am nañu oto nga xamante ne tey jii su la neexee nga taal sa oto nga paas léegi taf-taf ba ci benn même jour euh, bés bi su la neexee nga jóge Dakar yegg Ndar léegi ñoom suñu jóge woon Dakar pour dem Ndar mën nañu def ñetti ba ñeenti fan ci yoon gi dañuy dox ak seeni tànk wala ñu war fas wala war mbaam jóge Dakar ba Ndar dem làcc ji benn masala wala jukka jóge Dakar ba Ndar dem jàngi benn saar wala faw nga dem Ndar toog fa ay weer pour recopier benn téere soo paree bu déwénee nga toogaat fa pour mën koo jànge ci benn sëriñ jóge Ndar war a dem Saalum soxla benn téere nga dem fee euh, béyal sëriñ bi gerte béyal ko ci toolu gertem ay weer pour mën a recopier benn téere kon tey ji subhaana rabbi fawqa hada naqulu bi annana tullaab ci kaw loolu ñun nag nee nañu léegi dañoo so ay sàkkukatu xam-xam la ñu jàppee suñu bopp ay ndonga la ñu jàppee suñu bopp waaye ñu baree bari jàppee seeni bopp ay sëriñ subhaanallah lii la mag ñi doon daj ci li nga xamante ne moom mooy euh, sakku xam-xam waaye ñoom euh, noo ki noonu itam la ñu euh, ibtikaar ay wasaa'il maanaam ay yeneen jumtukaay yoo xamante ne daf leen di yombalal tënk maanaam ñu wuutal li nga xam ne mooy xuruf yi xar yi ngay gis nii muy xuruful hijaaiya ñoom ñu wuutaloon ko ay dàqantal maanaam ay tur yoo xamante ne suñ ko woowee rek dafay dellu parce que ñoom dañ ko bëgg delloo ci li nga xam ne moom moo di seen bii ñoom faw ñu wut ay tur yoo xam ne tur yu wolofe la nga xam ne ndong bii door a ñëw dañ ko koy jàppal joxal ko ko misaal ci li nga xam ne moom moo ko wër ba mom su déggé harfa ba rek dootu ko fàtte mukk te daf koy dégg niñ ko défé ci hurufi noné lañ ko défé ci sari alqur'ani wayé noné lañ ko défé ci lay alqur'ani sari dañ ko wutaloon ay tour ay tour yo xamanténé tour yu len jege bari na ay tour yu ngeen gis légui mu nek ay tour origine africain fekk ay sari alquran lañu lañu lañu déppé won nonu wayé ñun nak malheureusement tay ji ni né nga da ngay wane ne da nga dégg tubab ay tubab yu ñu lanu né né mo man déggu mo wolof so waxé rek duggal ci 14 bonjour né nga jàpp nga ne ñak dégg wolof mom lañu jàpp ndom ndam légui légui né nañu ñàkk dégg wolof moom la ñu jàppee ndam te mag ñi dégg wolof dégg seen lakk te dinaa leen wax leen ne ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu lugal arabiya te xam langu arab dëgg xam nañu ne amuñu beneen lang boo xamante ne jege na arab ni ki wolof wolof maanaam arab ni mu yaatoo nga xamante ne ay fukki million ak ñaar ci ay ci ay baat nga xam ne ëpp na ko baat boo ci jël ci arab ñaare rek mag ñi am na nuñ ko tuddee woon maanaam am na nu mu tudd ci wolof wolof dafa nekk lang boo xamante ne bu yaatula kon ñu góorgóorlu ci bu baax a baax ñeen ñi tam daal di ñëw ci wàllu euh, arab danga ngay gis ne mag ñi dañoo déggoon arab lool ku ko weddi man li ma wax ay mbir yu neex dellu la xoolal ci seeni téere yi waaw ñi nga xam ne góorgóorlu nañ xam ci wàllu li nga xamante ne moom mooy alqawaid allugawiya wala xam li nga xam ne moo di ay shi'r al arabi ak fununa nga xamne lépp lo xamne muy muhasanaat al ma'nawiyya al badi'iyya nga delu ci bindu mag ñi da ngay fekk ni ñi kenn gënu leen won dégg arab waye ñom suñu wax wolof dañuy wax wolof yu leer nañ ba tay ji so xolé suñu borom xam-xam yu mag yi ci rew mi dégg nañu arab lool suñu génné ci biti suñu wax da ngay naan ñoom dégguñu leneen luddul arab waye xol leen ci biir rew mi dañuy wax ak nit ñi wolof yu leer nañ kon wal gogu ñu jëm ci gor gor lu bu baax a ba euh ma jox la misal ci mag ñi ni nga xamne noné lañu dakantale won harfi mesela xarf aynun boo xam dafa nekk ci njëlbeenu baat maanaam comme ni nga ne alayhim gayril maxdubi alayhim ayn googe nga xam ne dafa nekk ci njëlbeenu euh, euh, baat bi ñoom ayn gémmiñu till maanaam comme ni mu mel ni gémmiñu till moo tax ñu tudd ko aynu gémmiñu till maanaam gémmiñu till kon nga xam ne loolu dafay neex a neex a jàpp waaw ayn gi nga xam ne dafa nekk ci diggu baat bi comme euh, ayn bi nekk ci anna amta xam nga ayn boobu ni mu bindoo dafa nekk ci diggu baat bi moo tax ñoom ñu tuddewoon ko aynu dëggal maanaam dëgal ñi naan dëgës mooy waruwaay boobee di nekk ci fas gis nga nii muy def parce que dafa niroog aynun moo tax ñu tuddeen ko ñu daan ko tuddee aynu dëgër aynu dëgal kon eh, xoolal li nga xam ne moom moo leen wër parce que till ñëpp ko xamoon dañu daan dégg ay till till till wala nit euh, da nga daan dégg ay till guddi léeg-léeg mag ñi di ko tiitalee till yaa ngi yuuxu waaye li nga xam ne mooy dëggal parce que mag ñi ay fas la ñu xamoon bii ah maanaam environnement bi leen wër dañuy xool lu nekk lan lañ koy niroole yooyu yëpp pour ñu mu bokk ci góorgóorlu yi nga xamante ne daan leen yombal pour seen jàng alquran ma joxaat la benn misaal ci li nga xam ne mooy xaaun xaaun boo xam ne dafa nekk ci njëlbeenu euh, baat maanaam xamida xamida ni ngay bindee boo xam ne nekk ci baat ñu tudde woon ko xaa lonk waa moom lañ tudde woon xaa noonee mu lonkee mag ñi ci daara yi noonee lañ ko daan euh, tuddee waaye su fekkee xaa un goo xam ne dafa nekk ci diggu baat mathalan muhammad muhammad xaa dem dellu gis nga xaa dem dellu dafa mel ni dafa dem ba pare daal di wàññeekuwaat kon bële xaa lonk la dafa nekk ci njëlbeenu baat bi waaye su fekkee boo xam ne mu ngi ci diggu baat bi ñu tuddee woon ko xaa dem dellu yaakaar naa baat yi ma leen di wax ñi aw ci daara yi na nañu ko te ba léegi ñu bari ñu ngi ciy góorgóorlu ci li xam ne mooy daara yi kon yi dafa bokk ci góorgóorlu yi nga xamante ne mag ñi defoon nañ ko Euh, bokk na ci misaal yi masalan euh, Chine su fekkee Chine goo xam ne dafa am ñetti tomb mooy euh, Chine al muajama ñoom moom moom lañu daan tuddee Chine su tooy Chine su tooy waaye bari na ci ndong yi léegi soo leen lan mooy Chine su tooy sax mbaar du ñu wuti ndox fekk ab benn xarfu daal di cee sotti ndox <laughs> waaw Chine su mooy Chine goo xam ne dafa amoon ñetti tomb su fekkee Chine gi nga xam ne amul ñetti tomb mooy a Chine al muhmala moom lañ daan tuddee Chine su waw Chine su waw waaw eh, yooyu yëpp mm, eh, mag ñi dañ ci daan góorgóorlu bu baax a eh, soo demee ci taa al mabsuuta mooy taa un gii moom lañ daan tuddee taa tomb taa tomb bu ci nekk taa ñu daan ko du taati daaro yooyu yëpp mag ñi amoon ci ay ay ay dàqantal yu bëree bëri même ba ci niki noonu itam ci saar yi soo ñëwee ci saari alquranul karim yi mag ñi wutaloon ko ay dàqantal mathalan soo demee suratul baqara moom lañ tuddee woon laan laan li doon tekki ci wolof moom mooy sonn maanaam saar la goo xam ne soo ko ko jeexal da nga sonn waaw saar la goo xam ne da nga ca sonn lool door koo jeexal moo tax mag ci tuddewoon ko laan lu mel ni Ali Imran ñu tewoon ko ko galaay galaay gis nga ay tur la yoo xam ne ñun xam nañu ko mën naa am ci ñun ñoo xam ne dañuy dégg tur yooyu sax te fekk mag ñi alquran lañ ca lañ ca jublu yëpp nekk ay mbir yoo xam ne dafay jaadu ci ndongo yi ñoom ñu dellu ca daara yi jàngi ko kémti lay kattan rawatina léegi ci internat yi bari na ci ñi nga xamante ne yii bokk na ci junj yi nga xam ne moo tax ma xoon leen ne oustaz du yor internat oustaz du yor daara sëriñ daara ko yor kon yooyu Euh, nañ ci góorgóorlu bu baax a baax mu nekk suñu cosaan nga xam ne nañ ko xamal ndaw yi mooy tax bu ëllëgee ñu xam euh, yan coona ak yan effort la mag ñi daan def ci li nga xamante ne moom mooy euh, alquran saar yëpp da ngay gis ne soo xoolee njoogu sax moom mooy ma ida <laughs> waaw yooyu mag ñi dañ ci daan def ay ay ay ay ay su fekkee eh, eh, waaw eh, sooratu sooratu nisa ñu doon ko tuddee jigéen parce que mooy jigéen yooyu yëpp mag ñi ñu daan ci def ay góorgóorlu oh, bu baax a baax ni ki noonu la amee ci alquran comme que jotaay gi dañuy junj rek ñun ñu xam bu ci nekk jéego yi la ci mag ñi daan def après ku ci nekk soo delloo ca daara ja wala dellu ci mag ñi ku mel ni Cheikh Mouhamed Aliou Guèye Abou Taha moom taalif na ci téere téereem boobu noonu ñu ngi sàkku ci ñëpp ko am moom junj na ci ci wàllu googee waaye daara yi nga xamante ne moom mooy daara yu yi nga xam ci réew mi tey ji def na ci ay jéego bu baaxa baax daara ju nekk kañ la sosu ak maraaxil yi nga xamantene daara jojé aw na fa kon yaakaar naa ku jokkoo ak moom mooy Cheikh Mouhamed Ali Guèye bu Thiénaba yaakaar naa soo amee téere boobu dina nekk li la li la jëriñ lool fi ñu tëjee mooy mag ñi ñu ibtikaaroon am na loo xam ne lu ñu tuddee woon boole boole googee bokk na ca la ko taxoon mu ëpp am njëriñ عدم tamakkuni معظمهم من العلم بمخارج الحروف العربية ومن علم الرسم lu baree bari ci mag ñi euh, parce que léeg surtout magum séeréer si léeg-léeg euh, léeg seen gémmiñ yi euh, maanaam seen laxja dafa am lu ñuy miinee ba nga xam ne pour nga wax loo ko baatu arab bu wér dafay xaw a jafe ngeen baal ma ma tooñ soose yi bu baax a baax soose yu bari kadalika dañuy am problème bi kajalika la <laughs> mu bari woon lool moo tax mag ñi fexe créer ay méthodes yoo xamante ci wàllu tënk soose yi samay xarit lañ moo tax dama ne faw ma tooñ leen ay tënk yoo xamante borom xel yi nga xamante ne parce que waa ji waxoon naaj bu bari day wawal xel <laughs> waaw xam ne léeg-léeg bu ñu daara day fekk xel bi dëgër na lool faw ñu wut ay tënk yoo xamante ne daf leen di jege moom mooy tax pour seen mokkal alquran nekk loo xamante ne lu yomb la waaye mu nekk li nga xamante ne bokk na ci ahdaf ya idaratuhum kitabat alqurani ala alwajhi saxihi wa daqiq ñoom day tax ñu mën a bind alquran ci bind bu jub xam naa ci bind bi di ñëw daañu ñëw insha allahu taala ci wàllu ñoom nañ daan bindee alquran waaye bokk na ci ragbatuhum fi tathbit alxifda lii moom mooy tax ñu mën a mokkal alquran mokkal goo xamante ne mokkal gu euh, dëgër la mathalan ñoom dañ daan jël ab euh, mathalan euh, xaraf yi nga xamante ne nuunu saakina su nekkee ci ginnaawam maanaam euh, wa qad aradu bi hada bayana nuuni saakina allati la tadharu alayha alaamatu sukun maanaam nuun goo xamante ne nuun saakin goo xamante ne alaama gi du feeñ ci ginnaawam maanaam su ñëwee ci ginnaaw xarf yi ñu tuddewoon ko lan euh, saka qajada fatabala maanaam xuruf yi dañ ne suñu nuunu saakina su ñëwee ci ginnaaw moom mathalan day nekk loo xam ne lu ñu ixfa la maanaam ñoom nii la ñu ko doon euh, tënkee ak ay yeneen ak yeneen mathalan su fekkee da nga fekk ñoom ñu ne la lamunura lamu nura mu nekkoon ab tënk goo xamante ne araadu al ahruf allati tushaddadu ida waqaat baada nuuni sakina aw tanwin maanaam lamu nura ay xaruf la yoo xam ne laamun miimun nuunun raaun ay xarfa la yoo xamante ne su fekkee ne dafa nekk ci ginnaaw nuunu saakin nuun bu sukkoon wala tanwin dañ koy shadd dañ koy shidda moo tax ñoom daan ko doon jël di ko tënk ci yu mel ni ci biir tënk yooyee ñoom daan nañu tënk li nga xamante ne moom al al mutashabihat maanaam laaye yi nga xamante dañoo dañoo dañoo niru ñoom dañ ko daan jël tënk ko ci benni benn baat lu mel ni walwa euh, walwa ñoom ñu namm ci li nga xam ne walwaalidaatu walwaznu walwitr waa ci bi nekk ci wal fajri moo tax ñu jubloon ci nee ne walwa ñetti walwa yi ay walwa la yoo xamante ne mun ne ñetti gaay yi ku leen topp di nga guddee àll maanaam di nga guddee àll wala nga fanaan àll waaw <laughs> maanaam pour nga jàng leen parce que wal waalidaat soo ñëwee baqara bëgg a jeexalee wal fajri kon boobaa faw nga yegg jeexal kaamil gi te kaamil gi pour nga jeexal ko ci àll faw nga guddee àll wala nga fanaan àll kon mu nekk ay tënk yoo xamante ne dañ ko daan joxe benn misaal bu leen jege waaye boo xamante ne day eh, gën a yombal li nga xamante ne moom mooy mokkal gi kon incha allahu taala sunu jotaay tey asalafu ma alquran eh, fii la ñuy taxawlu ba jotaay bii di ñëw ñu gën a yaatal ci eh, daaree démb ñu yeggale ak ñoom incha allahu taala door a ñëw ci mag ñi door a jël jëmm par jëmm ñu jànge ci ñom ay taxaway yo xamné ñun ndawi tay wala ñun nit tay dañ ci mëna gor gorlo bu baaxa baax ñu xamné alquran mbir yi matériel yomb nañu lool waye mag ñi jafe won na leen jafe won na leen lool waye teewul ñu def ci ay juhud ay gor góorgóorlu yu baree bari ba ñom ñu mëna a te mokal alquranul karim waye ñun tay ji ñun lan lañu defagum ولا نن لنو مكلي القرآن الكريم ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته